asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax du leen fàttali di fàttali sunu bopp ragal yàlla ak jaamu ko gannaaw bu ñu sante yàlla ndax kat lépp lu ñu war mooy bu ñu yeewoo suba li jiitu ci li ñuy def mooy sant yàlla sant yàlla mi ñu may ñi fekkee àjjuma ji te it ñu fàttaliku suñu soppe suñuy am di jàmm suñuy mbokk yi nga xam ne ñaanoon nañu yàlla fekke àjjuma ji tey waaye yàlla ci coobereem mu jële leen fi ñooñu nañ leen ñaanal yàlla yàlla xare leen àjjana te it ñun ñu bàyyi xel ni saa yu yàlla jëlee ku ñu jege mbaa mu jël ku jege ku ñu jege lim ci namm mooy fàttali ñu boppam fàttali ñu boppam ne waaj leen ci yéen laa jëm fàttali ñu boppam ni kenn nekku fi ku moom ba tax na baatu laa ilaha illa bi nga xam ne ñu ngi koy tudd saa su ne nañu góorgóorlu ba xam baat bi ndax xam baat bi moo ñuy yombalal sunu dund xam baat bi moo ñuy yombalali sunu waaj ci bés bi nga xam ne nii amul pexe amul alal laa yor amul doole laa yor amul xam-xam laa yor bis boobu bu yegsee sunu borom bi subhaanahu wa taala dëggal baat boobu nga doon wax muy laa ilaha illa allah mbokk yi ñu ngi leen di ndokkale li jiitu ci sunu ziar bi nga xam ne defoon nañ ko le vingt trois juin góoru yàlla boobu di Cerno Abdourahmane Bari bu boggal ñëwoon gane siñu moog njabootam aki i soppeem ak bépp soppe ak mbokk ak xarit bi nga xam ne ni teewoon na ca bés ba mu doon bés buñ doon ñaan yàlla jàmm ci réew mi mu doon bés bi ñu bëggoon xamal nit ñi ne te nit ñi xam nañ ko xanaa dañ koy fàttalu fàttalu muy dëgg rek mooy dëgg te dëgg mooy yàlla yàlla mooy dëgg loolu moo waraloon jotaay bi gannaaw bi ñu yendandoo ak kilifa gi jullandoo moom waxtu yi waaye bokk ak moom mbalaanu xadaratu juma ñu koy sante yàlla bu baax waa Pikine di ko sante yàlla ndaxte kilifa gu doy ni Cerno Abdourahmane Bari bu boggal bu jógee ba boggal ñëw teewe si ci bés bu mel noonu ci biir Pikine ci jidda caaroy kaw loolu ndamu gox boobu la waaye ndamu Pikine yépp la waaye ndamu réew mi yépp la di jaajëfal nag ñi nga xam ne peccum liir bu neexee dañu ne yaay ja jàpp ca mbagg ya ñi nga xam ne ñu ngi jëf ay jëf yu baax ci lu baax ñooñu néew na ci luñ leen di tudd ndaxte it ñoom ñiy def lu baax ci lu baax dañuy faral di wax saa su ne bëgguma ko dégg fenn déedéet yow mi jëf-jëf ju baax te yàlla rek tax yow lañuy wax ni bul wax waaye ki nga xamee dañ ko defal jëf ji mu yëg ci jëf ji yàlla kooku mënul sant yàlla fekk santul ñi def jëf boobu gannaaw am di jàmbi ak soppeek am di yëpp ak xariteeg yëpp fu ñu mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp lu ñu xalaatoon ci bés bi ak def ko ci yàlla na leen suñu borom bi yokkal waaye mention spéciale mi nga xam ne samay doom samay xarit samay soppe samay am di jàmm muy sama njabootu ruux muy alaaji Mamadou géey di maire bu Jidda Caaray Kaw waaye di directeur des domaines ak soxnaam soxna Fatou Faye ñi nga xam ne fa tabarakallahu bés bi bu taaroo nu mu taaroo woon seen taxawaay ci bés bi am na solo lool lool lool def nañ ko te yàlla tax <clears throat> yàlla mi yor fay yàlla na leen yàlla fayal boppam ndaxte bari na ci jotaay yàlla yi buñ ko wootee yàlla kese yi laa wax bëri na buñ leen woowee ci bés yi bëriwul li ci nit ñi di wuyu si ndaxte foofu nag amul taggaate amul puukare amul wanewu fi nit ñi sawar a def seen alal daal mooy fi nga xam ne ni ñu ngi leen di tagg yéena yéena wala ñi def tamit jàpp ni ñoom ñooy def man a a te damay wax ni man a man a boobu ak sunu sunu yooyu moo ñu indil tey jafe-jafe yi ñuy dund ndax kuy dund baatu laa ilaha illallah doo yaa doo xam lan mooy man wala sama yow mënuloo amuloo dangay war a xam ni ki fi nekk am te xam man muy yàlla subhanahu wa mooy baatu laa ilaha illallah boobu ñuy tudd di ko yuuxu saa su ne waaye ndax baat bi bu fekkonte ni xamoon nañ ko duñ ko yëg danañ ko yëg kay ahankay ndax baat bi buñ ko yëgee buñ ko dund danañ ko dund ahankay ndekete dund baat bi moo ñu nanguloo dee balaa dee di ñëw kon bu dee ñooy dañu fi fekk comme nangu nañoo dee balaa dee di ñëw kon kay mën a mën a sama sama xajatu fi waaye baat bi ba mu réeree nit ñi la lu bari réer ci réew mi kon alhamdulillahi rabbil alamin ziyaar bi liñ ci namoon sunu borom bi defal nañu lu kawe sunu njort ñu ngi nuyu di zéro di di sant sëriñ bi ci disponibilité am ci xat-xati jamono bi nu mu mën a mel mu teg lépp ci suuf ñëw fekk suñu foofu ankay ndaxte bu fekkente ni yaa ngi joxe laa ilaha illa bu boobaa li nga am ak la nga la nga moomal sa bopp danga koy fàtte li ngay fàttaliku mooy li nga xam ne ni yàlla jox na la ko jëmale ko ci jaamam yi moo tax moom ak mbokki taalibe yi ak soppe man xam nga rabbi day maa ngi leen di ñaanal yàlla Eh, yàlla leen yàlla fayal boppam bu ko defee ñu dellu si biñ ci jógee ñu dugg ci julli tabaski ñu julli ko ci jàmm nañ ko sante yàlla ndax damay naan réew mi lu waay mën a ñaan ci jamono yi nay ñaan jàmm ndaxte ci jàmm la lépp xaj defe naa ni ñu jëbee ba jubli ci tabaski ngelaw guy lëndëm boobu jaaroon fii tiit la woon na ñu bëri ñu bëri jàppoon nañ ne amaana tabaski sax du mën a am ndax fitina yi fi nekkoon waaye ndax fitina yooyu am nañu amalal nañu njëriñ déedéet amaluñ ñu njëriñ de lum ñu yàqal moo fi ne waaye du lum ñu defaral tabaski nañu ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamin nañu gi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla miy jéggalee yàlla nañu yàlla boole jéggal mu may ñu ñu teewe ko ay at yu bari ñu jóge ci président de la république am declaration bi mu def ñun ñëpp ñu déggandoo ko ñun ñëpp tamit ñu ëpp ci ñun rafetlu nañu kàddu yi rafetlu nañu décision bi rafetlu nañu li nga xam ne respecté na ko ndax te kàddoom la respecté defe naa ni tey ñiy wax ni pression sociale bi moo tax mu jël décision boobu dama leen ne yéen a ngi juum ndax li leen juumloo mooy président de la république wax ba mu waxoon day ci ay at ci gannaaw wax boobu dara teggeeku ci te neewoon na leen bu jotee danaa wax xanaa kay ñun ñoo yàkkamti suñu yàkkamti buggoon mu wax ci jamono bu mu waratoon a wax te mu am yoonam nag am nekk ci dëggam ni jamono bu mu ko soobee lay wax li mu bëgg a wax waaye nag ñun suñu yàkkamti moo tax ñu jaxasoo woon ba jaxasee lu bari ci réew mi waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi dund baatu la ilaha illallah xam nañ ne li fi xew ak li fi jaar yëpp sunu borom bi ci namm-nammam la amee bu ko neexee mu taw bu ko neexee mu xiin bu ko neexee mu taw te du xiin bu ko neexee mu xiin taw bu ko neexee mu xiin ba mu xiin mu ngelawal bu ko neexee mu naajal lu ko neex lay def moom yàlla subhanahu wa kon ñu jël loolu nga xam ne jaaroon na fi ba ñu ngi jaalee ñi nga xam ne seeni njaboot ñàkk nañ ci seeni bakkan di encourager ñi nga xam ne seeni alal yàqu nañ ci waaye di leen ñaanal yàlla it ñoom it nañu sant yàlla ba ñu yàqulalee alal rek ndaxte am na ñoo xam ne ñàkk nañu lu ëpp alal ndax nguur jar na reyante déedéet ndaxte nguur yàlla mooy tànn ku ko neex gis nga mën a mën a taxul mu doon yow mën a mën a taxul mu doon yow yàlla mooy tànn ku ko neex ci jamono bu ko neex mu jiital ko ci jaamam yi ñu ko neex kon war nañoo delloo si suñu xel ñun ñëpp décision bu président de la république wax defe naa ni kuy déglu woon samay waxtu ca jamono newoon naa leen man ma Macky sàll mënuma ko wax lenn luñ ko wax ci biir màndaam bi dañ koy tooñ waaye moom moo nekk ci dëggam ndaxte ñun ñoo ko fal léegi nag li ñuy xaar mooy ba jamono buñ ko war a follee ñëw ñu bëgg kaa folli mu ne du fi du fi folleeku bu boobaa nag dana am ñoo xam ne dana leen dégg te ñooñu man ci ñu laa bokk ma téye woon nit sama kàddu ni dafa am lu mu wax tànk taxawaatul wax lu bokkul ak la mu waxoon man aw ma droit di wax ci moom lenn ndaxte ñun ñoo ko wóolu ñun ñoo ko fal responsabilité ci réew mi ci liñ ko dénk moom moo war a xam naka la koy doxalee waaye gëmoon naa ni bokk naa it ci ñu gëmoon ni te ñu amul sikki sakk ni te mosuñu cee am sikki sakk te waxtaan nañ cee ñu bëri ñu ñu waxtaanal te wax nañ ko it fu bëri gëmoon nañu ne président de la république du wax li mu wax changé constitution bi changer euh, euh, euh, réglement intérieur yëpp ba ñëw taxaw wax li mu waxoon bind li mu bindoon mu war a mën a taxawaat sunu kanam ne déedéet la ma waxoon ak li ma bindoon yëpp gëmuma ci dara lii laa bëgg bu boobaa nag da doon dégg ñi mel ni ñun te ñu mel ni ñun bëri nañu ci réew mi doo leen gis ci mbedd yi du ñu sànni xeer du ñu taal pëno waaye nag ñoom ñooy électorat réew mi ñoom ñooy fal ñi falu ñoom ñooy folle it ñi nga xam ne ñooy folleeku parce que ñooñu ñu ngi toog ci seen biir kër yi yor seen carte électeur mooy seen arm ñooñu ñu ngi déglu ay programme ñu ngi déglu ay ay ay ay ay ay proposition ba ñu xool ku leen doy ñu dem sànnil ko carte jeunesse Sénégal dama leen bëgg xamal ne nguur kenn du ko jël ci mbedd nguur bu ko mbedd jëlee rek nguur boobu ci mbedd rek lay dund te bu ñu ñaan yàlla sunu réew mi ñuy dund ci mbedd ñun ñëpp lan mooy dund ci mbedd mooy nguur bu fekkente ni dem nañu ba institution yi fi nekk yi amul benn buñ ci respecté jàpp nañ ñu lépp baaxul waaw li fi nekk te baaxul buñ ko dindee kon lan la ñuy indi waaye ndax ñu ñu yaakaar ne duñu lu baax lañ fi mën a indi ndax ñoom xam nañu lu baax damay wax ni bu baax boo ko xamee danga koy doxee di ko nekkee di ko waxee président de la république jërëjëf ndaxte def nga li nga xam na ni wane nga ni réew mi fii ñit ñi toll tey naan réew mi yàqu na am na lu yàquwul fi réew mi toll tey ñu naan jikko yi yàqu na ndekete am na ñu seen jikku jikko yàqul fi réew mi toll tey wax lu dul dëgg sos ak tas yaakaar toll wane nga ni ci sa discours que ni ndekete siggil nga ñi nga xam ne ni ñu day seen kàddu ñu ngi ñaan yàlla di ko sàmm ba keroog ñu fiy jóge kon président de la république jërëjëf leneen li ci des mooy naka nga ñuy dimbalee bëggu nga ñu ba fii ba le 2 avril ñu ñaan yàlla mu may la ndam yu kawe yi la yàlla defal ndaxte lii ndam bu rëy la adduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee àdduna bi yëpp ñu ngi koy rafetlu léegi nag beneen ndam bi gën a kawe ci ndam boobu mooy nga dimbali ñu nga organiser ñu ay élection yu transparent élection yoo xam ne amul par parloo élection am yoo xam ne amul kii laa ko yéene kii laa koy jox moom moo war a déedéet damay wax ni àdduna ñett yi ñoo ci ne te képp ku ko xamul rek yaa ngi juum soo xamul li nga moomal sa bopp xamoo li nga bokk ak nit ñi xamoo li nit ñi moom bu boobaa da ngay am jafe-jafe te bu boobaa dangay doon problème dootoo posé te ay problème ñu wut solution yow yaay doon problème bi te bu boobaa utal la solution du yomb ndaxte damay wax ni li nga moom lu la neex def ci te dama ni wax sax li nga moom sax bu dee borom xel nga lépp looy def war nga diisoo ak ñi lay jege ndaxte lépp loo moom rek bu dee alal la am nga beneen alal bu gën a kawe alal boobu muy sa njaboot na nga diisoo ak sa njaboot te la ngay def damay wax ni luñ la dénk buñ ko laal lépp loo ciy def diisool ay damay wax ni li nga xam ne ni nag moomoo ko buñ la ci boolewul bul ci bokk dafa di loo xam ne kat ñetti ñetti mbir yooyu ba muy dem sax ba ñeent ndaxte buñ la boolewul ci lenn nga téye sa njàmbur dafa bokk ci loo xam ne ni dafay tax nit ki am jàmm kon fu mu nekk nii alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may na la euh, euh, li nga bëggoon waxoon nga ko ca njalbeen ba yàlla may la kàttan ak wér ba nga fekke ko ba wax ko ba tey ji àdduna bi yëpp siggee siggeeku sa kanam abi adduna bi yëpp nga siggeeku ci seen kanam adduna bi yëpp nga ñu naw la ci seen kanam léegi nag li ci des jàpp naa ni sax moom moo gën a difficile lu difficile mooy naka nga ñuy gunge ba organiser ñu ay élection yoo xam ne nga may ñu ñun borom xel yi nu ñu tànnee ku ñu doy ku ñu xam na ni kii am nañ ci moom yaakaar ni bu ñëwee dina def lu ëpp yow li nga def ndaxte nag état continuité la Senghor jaaroon na fi jóge fi Abdou Diouf ñëw du Diouf jaar fi jóge fi Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade jaar fii jóge fii yow nga yegg si yow tey ñëw nga yaa ngi dem keneen kii ñëw ñi ñaan yàlla mu def li ëpp li nga defoon ndaxte nag Abdou Diouf am na lu mu defoon lu Senghor deful Abdoulaye Wade ñëw def lu Abdou Diouf deful Macky Sall ñëw def loo xam ne ne Abdoulaye Wade defu ko waaye léegi ñuy ñaan yàlla nag am koo xam ne bu ñëwee danañu defal lu gën li nga def yëpp jërëjëf monsieur le président de la république leneen lii mënuñu cee bañ a wax ndaxte réew justice moo yor réew te damay wax ni réew mi ñu naan justice ba baaxul moo gën sax réew bi ñu naan amul justice ndax réew bu amul justice anarchie lay indi ku nekk day xool ku ko neex def lu ko neex kon justice bu defee liggéeyam ñun ñëpp dañuy ànd déglu justice justice la mu def la mu teg ku mu mënti teg fii amul kenn koo xam ne ci réew mi war nga fay mën a taxaw nga ni man kenn du ma euh, justice mënalu ma dara wala lu fi justice wax du ma ko topp loolu boo ko waxee yaa ngi indil sa bopp fitina boo ko waxee yaa ngi indil réew mi fitina ndaxte nag justice ñëpp la fi nekkal justice ñëpp tamit la fi war a nekkal justice dañoo war a wax loo xam ne ni wala def loo xam ne ni buñ ci jógee ñoom it ñëpp leen di naw waaye réew du fonctionnaire ki li ma bëgg noonu laay am su ma ko amul réew mi day tàkk te it bàyyi leen di wax ni sénégalais yëpp déedéet bàyyi yéen ñëpp nag muy parti au pouvoir di opposition parfois ci seen communication da ngeen di def ay erreur yu mag sénégalais yëpp man lañu àndal loolu kenn mënu koo wax déedéet yow xamal ñi ànd ak yow li ci des bi ngi jëm ci ay élection yoo xam ne droit maanaam instu euh, euh, euh, conseil constitutionnel moo fi ne mooy valider ñi nga xam ne seen candidature dañuy jàll wala mooy ñàkk valider candidature ñu warut a jàll ñu war a jàll dina justifier lan moo tax ñu war a jàll ñu warut a jàll dana justifier lu tax waruñu a jàll mais àdduna noonu lay doxee bu ko defee ñu ngi ñaan yàlla réew mi na fi jàmm sax ñu ngi ñaan yàlla réew mi yal na yàlla delloo si xel ñëpp lu amul lu ñu mënta waxtaanee nañu waxtaan suñu biir réew mi suñu réew la su baaxee ñun lay baaxal bu yàqu ñun lay yàqul nañu waxtaan suñu biir ba déggoo ñu organiser ay élections yu transparent ñu organiser ñu may réew mi vraiment nag ñu liggéey tuuti ndax li ñuy ñàkk ci at yi passé bëri na maa ngi jéggalu ci sumay kàddu bu fekkente ni am na njuumte bu ci am man mii la mi matul waaye xam leen ni sama yéene mooy jàmm ji ñëpp yéene réew mi defe naa ni bokk naa ci ñu yéene jàmm réew mi te eh, ñu ngi ñaan yàlla jàmm jooju sax ndax ñun ñëpp xam nañu ci ay ñetti fan ci benn jamono rek lan mooy valeuru jàmm lan la jàmm jëriñ ci réew lan la jàmm mën a def ci réew waaye xam nañu lan la ay mën a indi ci réew kon nag nañ leen moytu di yee fitina di yeetante fitina ci suñu biir te bu fekkente ni amuñu jàmm ku ci nekk ci ñun am na leneen looy lu dul wax walla dox walla liggéey kon réew mi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def déggoo ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla indi tàppe xol yi te it nañu góor góorlu bu fekkente ni dañuy woote ay jullit lañu nañuy góor góorlu di rafetal suñuy kàddu boo demee bay doon njiit wala ngay doon kilifa am na loo xam ne ni waratul génn ci sa làmmiñ ndaxte boo demee ba doon kilifa mbooloo déglu la wala mbooloo di la déglu wala mbooloo topp la du lu ñëw ci sa làmmiñ nga wax lu ñëw ci sa xel nga wax danga war a xalaat waaye danga war a am am ñoo xam ne ni dañ lay jege nga laaj leen seen xalaat ñu wax la seen xalaat nga jël seen xalaat nga boole ko sa xalaat nga segg li gën a baax ci sax ci xalaat yooyu nga génne ko ci sa làmmiñ xam nga ni fan yi passé ki nga xam ne wax ju ñaaw jooju mu wax bi mu ko waxee ñëpp a tiit ca ëllëg sa lay yeewu di jéggalu loolu mun na ñàkk ci kilifa bu ñuy joxoon kilifa nga mun na ñàkk ci ki nga xam ne ni ba ngeen a bokk ci réew mi ngeen xam ne yéen da ngeen ne da ngeen a bëgg changer li fi ne mais ci ay kàddu yu ñaaw ngeen koy changer déedéet ci ay wax yu ñaaw ngeen koy changé déedéet ci ay saaga ngeen koy changé déedéet ci ay xaste lañ koy changé déedéet ci ay sos lañ koy changé déedéet te defe naa ni képp kuy boroom xel kàddu googu bi mu jógee wax dëgg yàlla am na loo xam ne ñaaw na te fa ko génnee sax ci jamono boobu waroon nga xalaat ni boo waxul woon leneen lu dul lu rafet ndaxte ñëpp a rafetlu jëf ji nga xam ne président de la république def na ko su ngeen ko rafetluwul su ngeen fa yëkkatee kàddu kàddu bi yéen lay yéen lay daaneel yéen lay ñaawal seen i jëfin wala seen i nekkin waaye di ki ngeen ko wax parce que ki ngeen ko wax moom def na loo xam ne adduna bi yëpp tey adduna bi yëpp laa wax muy Amérique Europe Asie fépp ñu ngi koy commentaire parce que geste bu noble la geste bu responsable la discours bu bu bu bu bu la kon euh, tooñ jéggalu a ahankay waaye danga nga tooñ ba tooñaale ndaxte tooñ ba tooñaale mooy nga tudd ki nga war a tudd ñàkk xormaal ki nga war a xormaal waaye nga dellu bay tudd keneen koo xam ne tey jii seen réew bu ñeneen waxoon leneen mu jur leneen donc xam ngeen ne loolu du du lu rafet loolu tamit dañ koy condamné jot na ci réew mi nag ñiy wax dëgg nañuy wax dëgg ñiy wax lu dul lu dul dëgg nag ñiy wax dëgg tamit nañu am courage taxaw ne leen nii ngeen ko waxee du noonu ñun nag ànduñoo kenn faruñoo kenn yàlla lañu àndal réew mi képp ku fi yàlla teg ñun moom la ñuy àndal su paree rek pare nañ ci moom kii yàlla di indi ñu ànd ak kooku ndaxte ci ndogalu suñu boroom rek la ñuy àndal maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñu di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm di leen ñaanal àjjuma jàmm di ñaan yàlla lépp lu ñu julli ci jumaa yi tey ñaan ko saraxe yi xadaratu jumaa yi am ak fépp fu mën a amee lépp lu luñ fa mën a ñaan yàlla na ko suñu borom bi nangu di jéggalu ci suñuy kàddu bu dee am na lu ci rafet fa yàlla la bu fekkente ni njuumte ngi ci wax moo yombul wax dafa yombul ndaxte saa sooy wax war nga bàyyi xel ni li ngay bëgg a wax am na ñoo xam ne ñoo la ko gën a xam fuuf te ña nga toog noppi yàlla noppi loo leen ca jamono boobu booy wax na nga xam li ngay wax booy wax nanga xam ñi ngay waxal ñi ngay waxal fan mooy seen tolluwaay waaye nag li gën a am solo mooy bu noppi jotee na nga noppi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara man la seen soppe Hamdou Rabby Wane asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. vidéo bi nag maa ngi ko def fii si sama kër mag sama xarit sama soppe Cheikh Ahmed Tidiane boo fii ci Ponti ma amoon rendez-vous tey fii ci Ndakaaru ma teel a ñëw fii la yàlla dogaloon vidéo bi ma ko fii def maa ngi koy nuyu di ko ziyaare mu ngi moo soxnaam soxna Kinde Mbooj di nuyu njaboot gi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu